père maa ngi lay siyaar de deux minutes rek maa ngi lay siyaar bu baax sama papa noo def. siyaar naa la siyaar naa alhamdulilah. région de Dakar daa bokkoon ci favori mais démb gis nañ ñu ñëw wane seen bopp ci drapeau chef de l'état waajaay bi taxawaay bi ak lan la parce que bii weesu jëli naa xale yi ñu wax wala jàppale bi dafa des mais bii yoon dafa mel ni per booy impact. waaw alhamdulilah macha allah xam nga rek bon comme que dañ cee jaar dañ cee jaar euh, war nañ xam ne ñuy entretenir athlète pour mu nekk ci bonne condition pour mun dem compétir yi. nga jël athlète danga ko ko lekk-lekk bu baax mënul naan naan bu baax mënul xale mënul dal bu demee compétition du indil dara néew yi nag dañuy indi dara mais yàlla yàlla may dara en tout cas lépp loo xamante ne conditions yi baax la yi ñu teg athlète pour mu dem euh, discuter ji ay compétition teg nañ leen ci léegi nag mos na dogal bi ak seen mën-mën na ak seen pexe tamit ñoo ci des bu ñu la defalee lépp yaa ci des nag détermination relax fo comme ba pare rek ok niveau bi nag mag na drapeau chef de l'état dafa rëy mais da ngay mel ni kuy bëree ji rek comme ni ñu takk seen seen ay jaaj ji rek topp àll bi am ajuma ñu bëree samedi ñu bëree dimanche ñu bëree ñuy bëri seen biir rek c'est-à-dire que seulement rek différence bi nekk mooy région bu nekk day choisir cinq et mënu lëpp cinq donc moo tax ñenn yi ñëw nañ ñenn fi nekk nag mooy les valeurs sûres de l'arène ak ñi ngi suñu avenir suba donc nag on a choisi cinq yoo xamante ne am na ci ñoom confiance alhamdulilah rabbil alamin ñi ngi final ak euh, Fatick dimanche yàlla ñu yàlla may ndam mais cinq yooyu dafa am xale boo xamante ne ñu bari ci chef de l'état bi dañ ko doon sóoraale. Mhm. muy Tony Junior. <laughs> daaw mu ñëw gis nga ni mu demee. ren mu ñëwaat gisaatuñu Tony lan la. xam nga loolu tam day day day tax nga mën a tate expérience ak situation wu compétition bu dee lutte simple yi dégg naa fu mu dem mooy jël. ba récemment rek euh, bu seeni CNG bi moo jël. ak yeneen yu ko ak yooyu mais ñu gis ne daaw dafa lajj ci daapo chef de l'état bi ren tamit mu ñëw vraiment lajaat lajjagum. parce que tam lajj bi moom moom mooy nga génn mais équipe bu mu nekk cinq lañu ku nekk day indi say force pour ñu qualifier qualifier nañ ci qualification yi la bokk parce que na benn victoire ak trois défaites quand même nag ñëw na quand même ak décision j'ai vu visage mi ngi di ma romb individuel la bopp sa bopp ñu demandé ko rek mu relax parce que xale yi tamit fu nga leen di mën a coacher xam leen ñu ñu leen parce que dañu leen jël rek dugal leen dix jours ànd ak ñoom biñ ñëwee nag vraiment jox nañ seen bopp teel nañoo tëdd nangu nañu téléphone yi def nañ leen tout torture pour ñu concentrer wu lu jëm ci compétition au niveau mais nag mu des nag boo ñëwee di compétir lan ngay joxe ndax da ngay ñëw concentré wu ne du ma daanu non fi compétition bi xew ak règlement bi xew nii boo nee du ma daanu da koy génn il faut prendre des risques il faut nga dem di songi il faut nga tenter plus d' action que sa adversaire parce que bu ngeen yemee déjà bu acculé sa adversaire rek bousculer ko bëriloo ko arbitre bi day bàyyi xel commencé joxoñ ki ñu bëreloo parce que sant quand <laughs> ngeen ngeen passivité yu mel noonu boo ko defee benn yoon ñaari yoon jox waa ji donc il faut venir lutter trois minutes la ci biir trois daan daan dinaa point parce que benn avertissement parce maay bëri bëri wuloo donc tuuri c'est ce qui lui est un peu arrivé te yenn combat yoo négligence daan nit ki ba mu war daanu nga naan am na trois appuis bàyyi ko mu daan la loolu euh, la après arbitre daa àndal toog ci kawam loolu lañ la sant parce que moom nga nekkoon entraînement boo fi nekkee naan ànd trois appui PR ah, c'est des situations yoo xamante ne pour leur gonfler ñu xam ne ñoom ñii dañ war tey affaire au sérieux di daan ba mu àgg compétition bi nag ku nekk xam ne ne lu yomb bopp daf ci nekk dal nekk ci ak concentration dafa guddan ah, quand même imagine toi ñoom quatre heures ñu ngi fi bala ñu fi jóge minuit mais c'est trop long maa ngi di jox ma jël <laughs> ay vitamines la yoo xamante ne contre le soleil ça va ça mm. parce que actuellement à Diourbel il fait 43 degrés 43 degrés ci ay caaxaan ah. boo génnee sa chambre boo génnee ci biti nga man ndax man damaa nekk yomal xiyaam ñu may lotal wala bu ñu nekkee fii summeeku di jaabante sans arrêt fii ba minuit foog ñu am loo xamante ne bu ñu ko jëlee dina leen may résistance du ñu xiif du ñu fatigué ça ça va normal. Mm. mu nekk ay trucs yu normal yoo xamante ne ci pharmacie bi ko jëndee suñu médecin moo ñu ko bindal ñu jox leen ñu naan ko. Eh, après euh, mun def seen ko ma tranquillement question dama lay laaj nii defal nii comme nii nii nii nga bay def ah. nii sa diggante Serigne Ndiaye nii bi lan ah non en fait xam nga mbër yi dañoo xër moom moment bi ñëw di ma def yooyu fekk Dakar ak adversaire am 2-2 xam nga kon kenn moom dafa war a daan rek pour ñu éliminer éliminer ko mu ñëw daan nag ñëw di ma donc c'est normal parce que am naa ak sama diggante am na complicité c'est mon fils on est tout le temps ensemble donc complicité la ci diggante papa ak doom bu ñu fa jógee nag na ko gars jox na ko gars yi jël. mais dinañ ko daw parce que bu nekkee ci mbapat yi di bëre. ñu naan mais booy bi booy bi booy bi làmba mel noonu nag même ñu sax suñuy jamono astafurlah ñu sax suñuy jamono ku ñëw ñu ubbil la. gis ngeen sax sama digganteeg ak Tyson c'était pas évident ma bëre ak moom gis ngeen sama digganteeg ay ay Lac de Guiers ay Khadim Ndiaye mais il faut ouvrir làmb ji foofu tam benn discussion la. moom mooy xale yaa ngi màgg gars yi ñëw ubbil yoon bi te xam ne mu leen neex mu naqari leen dañuy dem ñooñu ñëw rek ndax ñun dem nañ tey jii wax dong lañ desee suñu sikkim yaa ngi weex ku ma ñëpp rek xam nga mënu maa lim nag ndax man ma nag mënu maa lim ay ki mu war a moom mooy lim waaye daal ñu dama ne ma Emerson Junior Samba Ndiaye ak Demba Ndiaye de ki mën ci làmb ji ba ki gën a néew ci làmb ji ku ñëw bëgg na